ma am nag benn kenn koo xam ne benn kilifa ci réew mi dama ko laaj ma dem ma seeti ko waxtaan ak moom ma ne ko mais yéen politique bi ñooñu c'est des acteurs politiques ay hommes politiques dëgg mhm. ma ne ko mais dëkk bi ni muy doxee nii lan nga ci xam jeunes yi dañu commencé yi te jeunes yi am na loo xam ne dañoo bëgg kut ko kut mu change parce que dañoo bëgg dëkk bi dox jëm kanam mu ne ma wax nga dëgg mais xamaguma ku doon ñëw ma ne ko jox dañoo gis yéen acteurs politiques yi à chaque fois da ngeen di ñëw ñëw amasser kii gars jël mais après bu campagne wala affaire passé rek presque ñëpp iseeku jeunes yi sax pour ñu gis leen c'est un problème alors que ñu ñi li leen war a ñor mooy gestion naka la ñuy gérer lu tuuti ñun li ñu am pour pour génn pour pour mën cee génn mu ne ma dinaa la conseiller benn affaire mu ne ma li ngay def nii c'est vrai yow yaa ci engagement citoyen mais li ngay def nii politique la fi ma ne ko ah bon ma wooyu ne ma politique commencé na ci li ngay def defar sa bopp ma ne ko qu'est-ce ne ma nag soo gisee acteur politique yooyu ni ñuy doxalee c'est parce que ñoom politique kese la ñu jàng mais nag ku bëgg a dem ci bay defar sa sa sa mu ne ma loolu dañ koy jàng ma ne ko mooy la mu ne ma da ngay jàng gestion publique ma ne ko ah bon c'est le ministre Benoît Sambou ministre mu conseillé ma loolu ne ma da ngay def gestion publique nga xam ne ñaari di nga ko mën boo téyee ressource di nga xam ni ngay gérer sa gox nit ñi aussi di ngay xam ni ngay jëflanteeg ñoom ak ni ngi leen di gérer ma commencé yéewu commencé xam ne kon ñee benn xamee naa ko parce que yàgg naa ko mais amaana comme lii xew nii man mosuma ko def donc nag di ay jeunes lañ yoo xam ne ci koñ bi lañ ñenn ñi ci koñ bi lañ jiitoo ñenn ñi dañoo donc mais nit boo yàggee ci koñ day dem ba mel na fa nga nañ fi yàgg nañ fi yàgg boo xam ne na tey ñu di def yëgal boo ñu yëgal sax ci lañ bokk ndax ci lañ dëkk donc nag dañoo toog benn jour maak moom yi xam nga ñu gis ni fii mel xam nga te am na loo xam ne maanaam nit di jóge koñam ñëw sa koñ bi la ko defal yow mi si dëkk bi yaa koy njëkk yaa koy def ñu toog maag moom waxtaan ci waxtaan ci lu yàgg ak leneen ak leneen ñu ne ñu ne pourquoi pas ñun nga xam ne ñooy jeu de koñ ñu ñu initiative bi maanaam xëy set setal koñ bañ ci waxee mu ne tamit foog ñu am ñoo xam ne dañu na gis wax dëgg parce que maanaam benn mënul def leen foog ñu jëkk en masse xam nga boole doole yi bokk ko def ñu dem waxtaan ci ñu ko ñu ne pourquoi pas ñu seet seetal ko parce que doomu daara ñu c'était ñun la seetal vraiment c'était ñun la seetal tamit ay ndaw la ñoo xam ne ñu ngi ci koñ xam nga à chaque fois ñuy bàyyi nit jóge ailleurs di ñëw di naan ni nii ngeen war a doxalee koñ bi nii ngeen ko war a defee. problème na ngeen def ah fana yow yow gëj naa laa gis. ah waaw ñu ngi nii rek. aywaay waay waay waay ah. waay waay Alhamdulillah. Oh. Ang parawo. Acaba ah, ah, ah, ke na tama na. Acaba ke kay ñepp la. Ah. Comme comme général waaw. ñepp la. Naan bi koy. Di ba mel rek naw. Ça va. Ça va. Sam lay une nettoyage na ko sa ko organisé. Ah. Inga lay ko ndam bi. Ah, c'est bien. Amo sa de. Xam nga ñoom dañ ma ko waxul bo bi ci guddi. Ñu naan na dañ koy def service dañ nekk avant koo xam ne dañuy jàpp. ma ne waaw yéen ku leen di jàppale yéen da ngeen di waxtaan ak kii kon boo cay def dara waxtaan ak kilifa ya fa ne dëgg la buñ ci bëggee jàpp jàpp ci waaye loolu ngeen ko defee hmm. xale bi defee noonu wax mag tàggu mag la def hmm. naa leen ndox boo kii mu loolu leen ay burle hmm, sofi Ndiaye léegi dem nañu jëli dafa koy liggéey waaw. ñu leen di gërëm bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla bàyyi leen di yàgg a yàgg yàgg ngeen yàgg fi téye waaw lay gërëm bu baax a baax. alors que vous faites dans l'administration maritime. voilà mais nous sommes un peu comme social. on a un mouvement citoyen vraiment qui œuvre pour le changement de la localité. Ah, euh, on a commencé par la distribution de masques pour tous les élèves de la commune. yi nga xam ne ils ont ils ont repris les cours dañu confectionné woon ay masques pour ñoom ñëpp pour protéger leen jaar nañ ci école yëpp école 12 école 6 école 27 Salif Ndongo A2 école yëpp yu nekk ci commune bi même école privée yi jaar nañ jox leen ay masques pour élèves yi nga xam ne ñoom ñoo war ndëptaan parce que suñuy rakk lañ parce que loolu dafa bokk ci ñun li ñuy cultiver l' excellence pour xale yi jël yoonu njàng mi xam ne ci njàng mi daal ci nga gën a mënee ci sama yaakaar ci nga gën a mënee am ay possibilités. vous êtes la route à certaines personnes qui, qui contre la reprise. Hein? Ah, ouais. ah, ah. contre ces personnes-là qui sont contre la reprise. Alors ça, je vous félicite et je vous Merci beaucoup. C'est bon acte.